tàmbalee ci yalla day war ab julit sa su ne sa yu bëggee wax mba jëf bismillah lay wax ni ndem wax na ko la ci top moy julli ci yonent bi ak ñoñam ak sabam ak doon yonent bi khadim rasul la tuddu mbàkke modi ahmad ahmadu mangi ngi ko nan jaajeufati mom mi ma tuddé ahmadu kuluna junu dihi aw junuduhu noo di ay soldaaram ñi meeg dëgër tey moytu tooñ moo war soldaaram noo si ñëwoon pactu soldaar ca kanam sëriñ Saliou nan ko ñeme te doon ay gor suñu digg ak sëñ Saliou ndax noo ko ne woon dañuy jàppe suñu bopp ni jëy suñ ba demoon Badar loolu moo waral jëy suñ moo waral diwaanu sulku jawahir fi axbaari sarair te ñoña dañ seni dagg seeni bopp ku dee dem àjjana te fii kenn daggul suñuy bopp lu mat a bàyyi xel la yi fii jaar yépp ak yi ñuy wax yépp maanaam dara du ci dara li dara mooy fasiyene yéene dool sëriñ soldat yi sëriñ Touba par la non violence loolu rek kay dara mënoo ni da ngay toppandoo jàmbaar yi woon ca dar te ñoom ñu daan dagg seeni bopp di sànni fa dar te yow kenn daggul sa bop lu di la bundu xataal kon ke da nga waral sant boo yemee ci bundu sama gañi nan len gore jaayante duy caaxaan lo gis mu da fay jall bu yando yit du fa nan ku ñu japp mba ku ñu raje te nga yaakaar xaadimu rasul cant tu rëy la wara a hmm ku ñu japp mba ku ñu raje te nga yaakaar xaadim rasul cant gu rëy la war a doon waaw ndax yaa gëm xaadim rasul man de dama leen ñee ci seeni daraja yu kawe yi waaw cey ku xamoon yéenay ñan sàkku ci yéen daraja yi yàlla na tedd ki def bu ëllëgee yowmal xiyam mu jéggal ñu leen di bundu xatal waaw ki xamul faaw mu jum salaamu ala man al huda Amen.